ey sama gars yi Ousmane ko mu sell mi kii nit yàlla de boo ko xoolee rek ni mu toogee nii sëñ bi nga xam ne kii moom lekk ay ayu si waaye boo xoolee Ibou Ndafa sëñ bi ni mu ne xujju bool bi di ko xool nga xam ne kii moom su paree dara dus des ni mu koy ñiitee nag noonu la bëgg a ñiitee réew mi waaye dana xam ne du fi amee de sëñ bi Ousmane ko mu sell mi nit ku sell ki nit ki nga xam ne yàlla da koo baaxal waaye yàlla yàlla sàmm waaye aar la 2024 incha allah nga tam xarite fële ca palais incha allah. barke sëñ bi yàlla mën na ko de te yàlla na ko def ñaanal képp koo xam ne a patriote nga moo xam foo mën nekk ci réew wala ci bitim réew yàlla na la yàlla sàmm aar la ba 2024 incha allah nga wooteel ko sell gi ñu jox ko réew mi mu tegal ñu ko ci yoonu baax bi. Ibou Ibou Nafa nag ba nga xoolaat sa de danga lekk ba kenn xamut noo toll <laughs> temps yi jël nga poids de eh, eh, Ibou Nafa temps yi jël nga poids li ngay lekk waay del def sport waay de. mais mais daan li ñu ñaan rek mooy incha allah 2024 yàlla nañ suñu borom bi faral ci xam ne mooy Ousmane Sonko kon nañ focus ci 2024 focus ci 2024 te xam ne mooy li nga xam ne moo ëpp solo jaa ngi jëf.